Mamadou Dia nee na ma bu ñu dee tudd PSS damay rus ndax yaa nga dale ca BDS waaw yow Cheikh Tijani bii yaa nga dale ca BDS kon nag li fi nekk yépp indépendance boobu ak léegi mu ni ma ku ni moo la ci gën a liggéey rekk waxul dëgg waaw te wax na dëgg ca BDS laa ko dale dang dang dang dang dang rekk rek ngeen xam ni looloo jàddu maag ñoo ma ko bokk waaw maag ñoo ma ko bokk tabarkalla yàlla jëm kanam tabarkalla yàlla na ko sët yéeg doom yéeg jarbaat yéeg ñépp bokk